gën koo kàttanal ba liggéeyu lislaam bi nekk ci loxoom yóbbu ko fu jot yëpp naandu kook moom ci barkeb sëriñ bi buloolu loolu jàllee am ndigal lu mu jox euh, sëriñ maam Moorum Cheikh Fadal mu ànd ak sëriñ Basir moom sëriñ Habibu ak sëriñ Muntaqa moom sëriñ mamoor Moor ak mbokk yi ngeen gis yëpp ci wàllu daara yi euh, kon ñu déglu sëriñ Maam mu jot li ndigal li nga xam ne moo bàyyikoo ci sëriñ bi. bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi waxdahu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baxda bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu maag sama bokk yu baax yi ma baaxoo àndal mbir mu mel nii muy waa rabitatul madaris al bi nga xam al quraaniya bi nga xam ne sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Fàllilu moo ko jiite moog sëriñ Basiiru Mbàkke mu sëñ Habibu ànd ko sëñ Xaali Jaxate ñoom ngi ñu ko àndal ñëpp ànd ko ñi nga xam ni ñoom la ma sëriñ bi daan booleel naka jekk muy sëñ Seex sëñ Muntaxa Mbàkke moom sëñ Mamour Pakala ak sëñ Seex Abdou Latif ak sëñ Seex Muntaxa doomam ñu ànd ko itam ak ñi ñu ko daan àndal muy waa Muxaddamatul ma bi nga xam ne sëriñ Afiya bu sa moo ko jiite sëñ ab sëñ Abdou Lahad bu sa ñoom ñi ngi fi di nuyu ñëpp ci turu moo Cheikh Modou Mountakha mi fi nekkal Serigne Touba di leen jottali ay kàddu yu bàkk yu gàtt yu bàyyi ko ci moom jëm ci waajal bi bisub sëriñ Touba bii nga xam ne mu ngi jub muy màggalu Touba te buñ ne màggalu Touba sëriñ bi sant yàlla la ci jublu sant yàlla ne sëriñ bi dafa dafa xam ni. ci sëriñ Touba ku bokk ak lu bokk ci moom dara jiitu ci jàng alxuraan ak xasaayit moo tax ren jii mu waajale ko nii mu ko waajale bëgg nu defe ko nii ñu ko ñu ko war a defe ndax at yëpp na ko kilifa yu tedd yu baax ya ya ko fi jiitu daan defe ku ñëw yokk ku ñëw yokk noonu la la doon doxale ba nëgëni si waaye nee na at mi dafa dafa rawati at mi ñu nekk nag ndax xew-xew xew ci àdduna si ñëpp teg ci seen bët teñ bëgg lépp barkeb Serigne tubaa ak dooleem ak ñaanam gu nangu ak bisam bu màgg boobu ñu jëm lépp suñu borom jeexal ko takk ci àdduna si jeexal ko ci réew mi jeexal ko ci àdduna si moo tax mu digal mboolem daari alxuraan yi yi nekk Touba ak yi nekk ci dëkk Serigne Touba yëpp ak yi nekk bitim réew yëpp ak fu ñu mën a nekk te yaakaar Serigne Touba te daari alxuraan ak mboolem jàkka yi Serigne Touba yi ak ja ak jumaay Serigne Touba yi ak mboolem daayira mu di ci nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew te ñëpp di njabootu Serigne Touba mu di leen ñaan ñu jàng alxuraan danañ wax ni ñu koy jànge waaye mu nit mi ngi mi ngi ñaan bokk jullitam yi mu bokkal diine ji muy kilifa diine yi ak seeni waa kër ñëpp ñu bokk jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne moom fa seen liggéeyal Serigne Touba waajale ko bisam bisam bu tedd bii di fukki fan ak ci weeru. safar muy diggu gàmmu niñ koy jàng nee na dafa bëgg gannaaw buñ jiitalee yéene yu sell jéggalu yàlla jéem a summi ci mboolem ñaawteef yi biir yi ak yu biti yi jéem a takkaayoo mboolem jikko yu baax yi yéene topp ndigalu Sëriñ Tuubaa ci sant la ko yàlla ci bisam boobu eh, wuutu ko ca nañ na ko ca kilifa yu baax yi daan wutoo mu nekk bis boo xam bi bisu cant la boo xam ne bi Serigne Touba moo wax ne ci sant yàlla ci xéewal yi mu ko defal yi feeñ ak yi nëbbu te muy xéewal yoo xam ni yi dafa amub tàmbali waaye amut ab yemukaay te at mu jot tey gën di yokk nee nañu yéene ci lool lool lool loolu lañ ci yéene niñ koy jànge nag bokkut ak niñ ko daan jànge te dañoo bëgg mu yokk ndax ni jamono ji demee waaye dañoo bëgg mu yokk te gën a sell gën a bari gën a gën a gën a gën a gën a wér gën a pësteefu moo tax mu wax ni daara ju ne ci biir daara yi nekk Touba ak ni ma ko limee léegi daara ju ne bu fekkente ni daara ju mag la su ma nee bis bu set mu jàng ñetti kaamil suba gi bëccëg bi ngoon gi bu ko bu fekkee daara ju diggu doomu la mu jàng ñaari kaamil suba gi ak ngoon gi su fekkente ne daara ju euh, yem la bu fekk mu jàng bis set benn kaamil ci suba gi loolu nag nee na dafa bëgg ñu topp ko tàmbale ko ci dibéer jëkk ci tam wi ba keroog ñu naan suba la màggal suba la màggal gi xayma bee nga xam ni waarabiti bi daanañ ko daanañ ko def at mu jot ci jamono Sëriñ Saaliw ba léegi daa fa wàcce alxuraan ci ñett ñaar ñaari fan yi wala bis bu mag bi nga xam ni alxuraan ji du dakk ci bis ba ba fajaru fajaru euh, euh, bis bis ba nee na bu soo ko defee su bis boobaa ñu mën koo euh, xatmu ñaan li mu bëgg li mu bëgg lépp suñu borom defal ko ci bis bi defal ko jullit yi defal ko taalibe yi kon loolu yi la sëriñ bi waxoon ni nañ ko santaane muy nag ni mu diglee alxuraan ji ci ñu ko jàng ci barab yi noonu la diglee itam xasaayit yi ndax alxuraan ak xasaayit dañuy ñaari warukaay yi Sëriñ Tuubaa yoo xam ni ci lay defee jëñe ci lay ñoddee kon rawatina xasaayit yi nga xam ni moom la sëñ bi di taggee bi ak xasaayit yi nga xam ni moom la julee ci yonent bi ndax yooyu mooy yi nga xam ne mooy xasida xidma yi euh, kon ñu jégg ko noonu baax a baax a baax te fës ko yi ne jëfandikoo bu baax a baax a baax a baax te xam ni sëriñ bi lépp loo xam ne mu ngi ni koy digal suñu njëriñ rek la ay njëriñ rekk lañ cee jëlee kon nu bokk góorgóorlu bu baax a baax a baax dégg ko noonu mu ko waxee te fas ko yéene noonu mu ko waxee day na su ko defee bu bis boo bayee bu ñuy ñaan ñu fasal ko ci moom ci boppam ak yàgg ak wér ak mottali mboolem lu li nga xam ni kilifa yu baax yi ko fi jiitu woon naaral nañ ko sëñ Touba ak li ko naaral boppam suñu borom mottali lépp waaye ñaanal mboolem njabootu sëñ Touba gi góor ak jigéen ci ñoom itam ginnaaw bu mu leen sant buñ buñ buñ leen ko santalee ci seen taxawaay ci niñ koy jàppalee ci niñ koy dimbalee ci niñ ko taxawoo ci liggéey bi ñoom itam sama borom aar leen muy ñu bokkal Serigne Touba muy wàllu mu la bokk boppam gi ak mboolem ñu bokkal Maam Mor Anta ak ma Maaram ak mboolem Bousso bi yi ak mboolem cheikh euh, si nga xam ni ñoom ci ñoom la Serigne Touba feeñale lii nga xam ni mooy moom da ko Serigne suñu borom may ndax moo wax ni wali qaada ahbaban bihim uskul ushiru nuska ñooñu itam ne dañu bañ leen fàtte ci ñaan yi waaye ñu boole ci kilifa yi yi ak mbooleem taalibe yi leen topp waaye ñu boole ci mbooleem euh, réew mi mboolem àdduna si mboolem jullit yi suñu borom defal nu jàmm defal nu kóolute defal nu euh, mbégte defal nu musu musal nu ci balaa yi ak musiba yi mboo xam biir réew mi la moo xam bitim réew mi la moo xam àdduna sépp la suñu suñu borom jàppale nu def aar lépp sàmm lépp ba lépp dàqu ñu fàtte lépp nawet bi ñu nekkee itam suñu borom def ko nawet boo xam ne bii nii mu tàmbalee mu wéyee nii ba lépp àgg te ñu muurloo ko ci barkeb Serigne Touba wax na ne barkeb Serigne Touba mën na lépp ndax la ko yàlla may xajul ci àdduna xajul ëpp na ëpp na àdduna kon dem na ba àllaaxira kon nag lépp lu taalibe soxla te aw ci ñaar yii nee na muy alxuraan ak xasaayit nee na wut ni suñ suñu borom dana ko defal ndax suñu borom day daal loo ñaan ak Serigne Touba ba kàddu yooyu la Serigne bi waxoon nañ ko nañ ko jottali di sant ñëpp di gërëm ñëpp li ci des dañ ko bàyyi suñu xaari jaxate mi nga xam ne moo daan mottali li ci desoon mottali ñu ko noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sëñ bi yàgg fi suñu kanam nu teewee ko nag déwén te kenn bañ a manqué wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mamor mel na ni kàddu yi jot na sëkk mat na ni nga xam ne noonu la ko euh, sëriñ bi diglee woon kon defe naa ñun ñëpp dégg nañu ko muy yeesal pas-pas yi tuubal suñ borom jéggalu ko waaye dibeer ji ñu jëm di ñetti fan wala ñeent ci weeru tamxarit wi war a tolloog ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août incha allahu taala moom la wax ne mooy bis bi nga xam ne buñ ci àggee kenn ku nekk fu mu nekk moo xam ci daaraam la moo xam ci jàkkaam la moo xam ca këram waaye képp kuy taalib sëñ Tuubaa digal na ko ba sàkk ko ci kuy ab jullit euh, ñu ko man ñu taxaw ca taxawee ci noonu yi mu wax mbooloo moo xam ne mën nañu ñetti kaamil jëm ca kaw fa lillahi alhamdu koo xam ne mën na ñaari kaamil mu def ko koo xam ne mën na benn mu def ko suñ jógee ca euh, dimanche joojee nag di ñetti fan ci wala ñeent ci di ñeent di ñeent ci tam xarit wi ba bañuy àgg ci fukk juróom-ñaar fukk juróom-benn ci safar bis bu nekk loolu bëgg na bu mu dog bu àggee ci fukk ak ci safar nag ca xayma ba ñuy jàngee alxuraan ca penku jumaa ja foofee dana yebal kilifa yii ñu ñëw xat mu ko mot li pas-pas bi bu ko defee kon ñu jàppee ko noonu yi loolu nag moo xam muy mbooloo mu dajee ci barab ab daayira bu baaxoo toog ci barab wala ci kër sëñ Tuubaa yi wala daara yi ba ci mbokki jullit yi fu ñu nekk te xam ne mën nañ ko faa defee sëriñ bi sàkku na ko ci ñoom kon mi ngi mi mi ngi ci soññee bu baax a baax a baax noonu it la soññeewaalee ci tari bi nga xam ne gone yi dinañ ko def ñu bu bu gi jubee ñu leen di déglu ñuy tari alxuraan ña nga xam ne mokkal nañ ca seenu mokkal rafet suñu àggee ca bis boobee di fukk ak juróom-ñaar ci safar euh, sëriñ bi signé seeni sahada jox ko kilifa yi ñu indil leen ko moom tamit incha allahu taala euh, alxamis ji nga xam ne euh, moo war a doon juróom-ñaar wala juróom-ñett ci ci ci muharram danañ ko ca tàmbali ba tey muy la le 27 ci weeru août woowu. moom tamit lépp rek ngir gàttandu màggal gi ak waajal ko ci alxuraan ji ndax lépp lu ñuy defal sëriñ bi rek jiital ci alxuraan day tax mu gën a am solo kon sëriñ baa ngi ciy soññee bu baax a baax bëgg ñu fullaal ko te sellal pas-pas yi jiital ci ñaanal ko moom mii koy santaane suñu borom gën koo sàmm gën koo aar boole koog njaboot ko sëriñ Tuubaa gépp ak kilifa yi diine yëpp waaye it mbas mii fi nekk suñu borom jeexal ko ci ci àddina bi takk ci barkeb màggal gi ñu màggal ba noppi te dara du xew lu dul jàmm ak yokkute kon sëriñ maa ngi sant ñëpp di leen gërëm. kon liggéey bi day tàmbali rek ci dibeer jooju ñetti fan euh, ci muharram wala ñeent ba ca fukk ak ñaar ci safar euh, sëriñ bi dana yebal kilifa ya moo xam muy moom sëriñ Mamor mii ak ñi nga xam ne ñoo wàllu njàngum alxuraan mi waaye sëriñ Bassirou sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne it comité d'organisation màggal gi ak kilifa yam fa baaxoo àndal yëpp danañ ñëw euh, tëj teewal ko fa. Euh, jàng xatmu ba euh, tëj ko dénk taalibe yi lañ leen war a dénk kon sëriñ bi nee na diggante boobu yi nag luñ ci farlu rek du doy luñ ci taxaw du doy kon mu ngi ciy soñ ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu